ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irahmaaniirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci ñeent fukkeelu jataay ak ñeent ci téereb Xalimag Leer noo ngi dugg tey ba tey ci ñu ngi ci buntub cant ci biir buntub cant noo ngi tàmbali tey xasiida ak minanul baaqil xadim te mu tàmbalee bara anil baaqi minal amraadi minanul baaqil xadim xasida la goo xam ne sëriñ bi gànnaar la ko bindee ci atum 1321 mu tolloog 1903 ay bayitam toll nañu ci ñaar téeméer rek fukk juróom-ñaar sëriñ bi tënkee na ko ñeenti aaya alxuraan ñetti aaya yu njëkk yi ñoo sosaloo tam tàmbalee bal axyaawun inda rabbihim yursaquun ak aaya ba ca topp ak ba toppaat tam jeexe wan allaha laa yudiixu ajral muuminiin kon ñetti aaya yooyu moo ci jiitu ginnaaw ba mu indi beneen aaya muy aayab fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suu'u wattabacu ridwaanallah wallahu du fadlin azim ñetti aaya yu njëkk yi sunu borom da ciy tudd gaa yi ñu rey ci yoonu yàlla muy wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko ña nga ca seen boroom di fa dund mu di leen defal wërsëg ñuy bég ci xéewal yi leen yàlla defal ak ngëneel yi ñuy bégeel it gaa ña ñu bàyyi seen ginnaaw ba ñu xam solos xeex ci yoonu yàlla yàlla du sànk payu goy gëm ñi beneen aaya bi borom bi da ciy wax way gëm ñi nga xam ne amoon nañu pas-pasub xare jàkkaarloog noon yi yàlla def xare mujjul am ñu dëpp daldi dellu ànd ak ay ngëneel jenn lor dalu leen te jugoon nañu ngir def lu yàlla gërëm yàlla ku réy ngëneel la aaya yi Sëriñ Tuubaa andi day wane lu bari ci mbiram moom Sëriñ Tuubaa ndax moom da doon xeex ci yoonu yàlla mook saxaaba yi yàlla di wax fii ñoo bokk xeex boobu bokkuñu nag anam anamu xeex bi waaye jubluwaay bi ñoo ko bokk muy liggéey yàlla def ci nit ñi xam-xam ak ragal yàlla bi ñu ko nee da ngay moom bañut loolu moom sëriñ bi bañut loolu waaye dafa leeral naka lay jihaate mu wax ne li ngeen wax ne man damay jihaat dëgg la damay jihaat de waaye yàlla rek a tax ma di ko def te man ci xam-xam ci xam-xam ak ragal yàlla laay jihaate ma di jaamu yàlla liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla seede na loolu wa maqaalukumu inni ujaahidu saadiqun inni li wajhillaahi jalla ujaahidu inni ujaahidu bil ulumi wattuqaa abudan xadiman wal muhayminu shaahidu kon moom sëriñ bi da yeyoo daraja ya nga xam ne ña ko jiitu doon jihaad ci yoon yàlla moom lañu am ndax moom lépp lu ñooñu dajoon ci coono daj na lu ko raw noonam yi ko génnewoon réew mi yóbbu ko bés bu nekk doon nañu jéem luy faat ba kanam day mel na sax bayitam bi ci biir xaside gi daa tolloog aaya yooyu ngir dafa wax ne yàlla dundal na ma ci ludul ak faatu ci lu dul xëccoo ci lu dul ak ndokk loolu dinañ ko leeral axyaani al baaqi bila imaata wala tanazuin wala chamaata wax gi mu wax ne du xëccoo du teg ndokk loolu mooy defar gi yàlla defar mbiram ba du xëccoo dara ndax yaatu gi yàlla yaatu lu waaye mën a am ci lu baax yéene na ko moom lu mu soxla rek da koy ñaan boromam rek ba tey képp kuy xaar lor dal ci kawam ba mu ne ko ndokk kooku nar naa sonn ndax yàlla da koo dimbali lool ba ab noonam du gis ci ma mukk lu mu ko mën a reetaane dund gi muy dund te du faatu loolu leer na ndax mbiram daa des ci jamono di wéy ba faw mu mel ne ba tey jëmm jee fi des di saytu mbiram loolu li ko waral mooy daan nekkoon ci boromam ba làq boromam ko ci mbiram ba saa su mu mel ne jógu fi ak dundam di ba faaw kon noo foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billahi min mbokk yi noo leen di nuyu di leen siyaare noo ci ñeen fukkeelu jotaay ak juróom ci téereb xaalim ak leer tàmbali woon nanu téereb xasida ak minanul baaqil xadim xasida gi di minanul baaqil xadim xasida la gu sëriñ Tuubaa di tudde ay mayam di waxtaane ay xéwalam yu ko yàlla jox waxoon nanu ne xasida cant yi ñooy wane may sëriñ Tuubaa yi ak xéewalam xaside gi nag da cee raw ndax tur wi rek day tegtale kéemtaan muy xéewali yàlla yoo xam ne ci kéemtaani yonent bi salallaahu alayhi wasallam la bokk loolu mooy tur wi oo ci gise ne sëriñ bi moom léppam yàlla da ko jaare ci yonent bi salallaahu alayhi wasallam bu nu seetee li mu wax ci njëlbeenu xaside gi lu jiitu muy tàmbali bayit yi dañuy xam ne mi ngi bëgg a tudd ay may yu rëy lool te yéeme ndax daa wax ne xasida gi kenn du sikka sàkka ku dul yéefar du sikka sàkka ne li nu ci bind ni nu ko bindee noonu lu amee li haadihi alqasidati allati laa yashukku fi kawniha kama katabtu illa kaafirun billah ba ñuy wax ja jexe bokk na ci bayit di Sëriñ Tuubaa indi ci eh, xasida gi di ci sant boromam nee na làq naa ak dund goo xam ne kenn du ko gis ci kudul man loolu di kéemtaan gu feeñ ñeel yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xustu xayaata laa tura baanat li usni xayri sëriñ bi moom ak dundam xeetu dund la goo xam ne mosuñu koo xam ci kudul moom loolu bu nu xoolee mbiram ci saaxiir ak ci baatin yépp dañ koy gis bu baax mosunoo dégg ci histoire démb ju ni mel ci ak bëgg yàlla kub yonanteem ba mu jaaral ko lu nekk doon koo xam ne kenn ku mu jamononteel mënu koo waxal lenn lu mu mos a def lu yàlla di tere ba ci ay noonam mënuñu koo bindal ab safaan te muy dëgg ñoom ñoo ko jël yóbbu ko ci barab ay at ngir fitnaal ko te gisuñu mukk mu won leen ne li ñu koy def metti na ko lépp rekk da ko jël bàyyee ko boromam seetalu yërmandeem ju bari ji mu am ci mbindeef yi ba ci sax ay noonam bari na lool yeneen mbiram yoo xam ne ak mbaax gu kawe lay tegtale ku dellu ci leen waxoon ci ginnaaw di nga ci gis lu bari moom nag ay kemtaanam daa dugg ci biir kemtaani yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax dundam gii nga xam ne mësuñu koo gis ci kenn mu wax ne ci kemtaani yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk ba sëriñ baa ngi wax ci xasida gi ne yàlla seetal na ma ci bépp sikk ak tawat mu wow matal ma ak wér ci bépp xemmemteef baraani min kulli aybin wa marad waqaatili waqaatili sixata fi kulli xarat yàlla da koo seetal ci bépp xeetu ayib buy nekk ci nit kenn du ko gis ci moom mukk mu defar saahiram defar baatinam wéral xolam lool ba lu dul yàlla du ci nekk noonu yi la wérale woon aw yaramam ci xeetu tawat yépp kon noo yam foofu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.